dee ñaan seen biir lu ne mu ne dee ko defal seen biir loolu li ko waral mooy maam loolu lépp moom maam moo moo ko war a def waaye xam na ne ñun ñii ci jëm boppam am na xam askan bi mën nañ koo def mën nañ ko mën ko àggal kon loolu nañ ci a waaw ñu ngi ñu foofu daa xam naa fa la ñuy wàcce suñu xat di santaan ñëpp di euh, ñëpp di ñaatam suñu suñu mag bi suñu sa suñu saaloo di suñu sëriñ tamit ndax maam man sama baay maamam la toog ko suñu loolu nekk moo ko yàq moo ko yar ba moo fa la muy toog ba mu yëri ko ba mu yëri ko man nit mu sama baay wudi ko jébal suñu baay suñu yow muy waajur man nitam sama baay jël na ma jëm jébal ma waajur waaw ci daara ji léegi bi ñu demee nag ba war a dem ci daara ji nag ba war a dem mulu tijji léegi nag sama baay damaa jël fii lañ wax si àll si ma maa sama baay léegi ma daan ne ko man de damaa bëggoon a mulu damaa bëggoon a mulu tijji bi ñu wàcc escalier yi ma wax ko mu ne ma ah loolu de neex na ma loolu waaye nag man dama am kilifa nañ dem ci sama kilifa maa ngi moom ñu ànd dem taayit dem ci bay suñu yow bi ñu ñëwee ci Baye Serigne Lo Baye Serigne Lo daal ne ah waaw fii de moom wax dëgg yàlla daara nekkoon kon fii la ñuy liggéey waaye nag ginnaaw daara néew fi nag moom léegi daañ daa di woo Serigne Lo daal may boole man ak sama rakk daal ne ko boo demee jébbaleel ma ñu së waaw loolu moo tax ñun ñu mëni koo maanaam maanaam maanaam ci daal si waaye bu fekkoon foofu daara nga fa kon moom ñun foofu la ñu nga xam ne foofu foofu la foofu lañ bokk waaw waaw ñëwal si baax baax waaw ñu ngi jégalu baax wasalaamaaleykum wa rahmatulah <coughs> ñu ngi sant bu baax di ko gërëm ñoom lépp ci jotaay bi la wax amoon ko loolu nag kenn ku ne xam ne yi fi jaaroon yëpp ba tax na yi xawoon naa jóg ñu daje yi da la yokkoon daal ci liggéey waaye nag man sant yàlla bu baax rek ndax bu yàlla dogalee nag kilifa bu mag kilifa bu féete la fa mu la war a féete da def mooy sant yàlla mun yàlla loolu defal na ko ñu fi amoon sax ndax jamono ji ñu nekk néew doo xaar ndax fi ko yàlla teg ak fi mu toll wax ñëw ko sama faare waaye la nga ci xam rek yow te xamee ko ci mooy fam fam bàyyi ko baax cay rom loolu muy lu leer nañ muy comme ni ko suñu xaaj waxee léegi dama ko mos a wax ne ko man topp ma la ngir ngir suñ Mbàkke topp ma la ngir sëñ Cheikh bi mu waxee li si mbir la mel sax dama cee santaat yàlla dama wax naa ko seen soxna ndax nee naa ko man topp ma la ngir suñ Mbàkke topp ma la ngir suñ Cheikh topp ma la ngir suñ Moussa topp ma leen ngir suñ Tuubaa dama laa gis si démb bi doon mu doon soxna te daa am loo xam daa dal jullit yu bari dem ba dal murid yu bari te yëgulu ndax euh, rasulullah bi fi nekkee sallallahu alayhi wa sallam ba jóge fi Serigne Touba dikk doon jëwrinam ñi fi wanoon Serigne Touba ginnaaw di wuti feneen ab cër kenn ku ne xam na ne amuñu cër amuñu cër yoonu murid bi dafa am ndax ku fi nekk di liggéeyal yàlla ba dem ngànnaay bi mu liggéeyee la dem ka ko fa ka la koy bàyyi mm-hmm. soo ko jàppee bàyyi maa ngi jàppee ko ma mu téye ko seet ña ko topp te dëgg ci ñoom la ñu séddale mu séddale hmm. loolu tamit dal na mur ju bari waaye nag alhamdulilah rabbil alamin yàlla dimbalee ba loolu dalul ndax dañu ne ko suñu xaar yi wax rek bërki de maa ngi wax ci benn place dama ne leen rek ku mën a doon da ngay xool la nga gën a naw ci moom wala la nga gën a jàppe soo ma ko waxee ma wan la loolu nag ak cant la boo xam ne ni mu ko waxee léegi Serigne Touba la daal ni ko toxtaane ndax li tax man la mooy euh, jamono àgg foo xam ne am na joo xam ne mënees waaye lu wér te wóor mooy jëmmi Serigne Touba ji teg loolu ku xool am jàngale xool ay waxam ak xoolaw doxinam lii mu def yoonu Serigne Touba loolu nag ñun ñi nga xam ne dañoo ànd ak moom ñun ñëpp. li ñu war a def mooy gën a takkaat suñu lax say bu gën a dëgër ñu gën a góorgóorluwaat bu baax te xam ne mag ñi fi nekkoon àndoon ak suñu maam yi lan amoon pas-pas rek lañ ko mën ak posture loolu te mas na ma ko wax ci niveau yi mas na maa wax bis ñuy waxtaan yàgg mu ne ma xanaa xam nga ne Ababacar ak Omar ak Ousmane ku tudd Rasul lay tudd leen te ñoom doomu doon ay jullit daan na ma sëñ Abdourahmane Cheikh Ibra ak mag ñooñu ku tudd Serigne Touba ñoom donc doonuñu ay murit mhm. daan na ma sa maam yi fi nekkoon ku mel ne sëñ Modou Lamine moom ak sëñ Rijaal Seck ak sëñ Madiba Sylla sëñ Bay Fallu Sa tudd dem ñoom donc ko woon noonu la ma ko ba daana ba as sama jëmm ji mhm. daan na xam ne nag anduma ak jinne ak ñanaaw ki malaat ay doomu aadama la am mhm. te yéen ñi ne ma am yaakaar ci liggéey ma liggéey moo tax ma ànd ko liggéey ku fi mas a jaar nag ay nit donc la am na ba réussir am liggéey ma soññee ci liggéey ndax mbir boo ca nekkee di dox bañ wan na ca loo xam ne ah man de dégg naa mag ñi di nett lii ko wax di ko wax li ma gis si moom mosuma ko dégg di nga ah, li ma gis si moom naa jox ba tey mosuma ko dégg man am jëm si mooy sëñ ma leer ah, am na am naa lu ma leer nañ ne kum nangul boo tëddee bay boo ah, nelaw boo tëddee bay boo yoon bi ñuy mën a jaar ba yàlla nañ loolu nag mooy jaamu yàlla sellal ko te nekk ci njub waaye nag te di ko déglu rek fu rek foofu la fu mu joxoñ rek foofu foofu la ndax dafa am magum murit moo xam ne dafa maa wax ne ma booba ku ñu maa ngi Italie ma ñëw siyaare ji ko ànd ak ku dëkk ngalim mu ne suñ Mbàkke da wàññi na ba noppi waaye diggante si Moustapha ak taalibe bi nag ak kàmb gi diggante taalibe bu farlu nag danga def kàmb gi da def si koo soxla. kan nag mooy moo tax bàyyi xel. nga xam ne dañoo xool ne. dafa toujours dama leen ku suñu mbàkkee nii demal fële ñuy jaay ak taxaw ci biir Poul. ngeen xam fa leen sëñ bi fa def en tout cas ngeen xam ba te xam fa xamee waroon ci seen doole la wàññeeku na ba jeex seenu xel na mu demee toog ba nga loolu mu dara dara dara jant boo ko xam toog fële ñun ñëpp lañ ëpp yaakaar ndax fële xam nañ ëllëg nu muy dem kon loola yàlla na yàlla yëngal ak xéwal ba lan ñu def loo ñu def ko waaye nag boo liggéey it kenn ku ne na la sëñ Tuubaa yaatalal ba nga xam ne da naan sëñ bi maanaam ñaan naa la bara bu may defee lu demee nii maanaam xeetu daara wala lu yokk xam-xam bi loo xamante ni bi doo ko si doo ko def dégg nga yaa koy yal na yàlla yokk xéwal ban man a génn ci suñu ñax boobu def ah la ñu waroon a jiital muy Cheikh Moussa Mohamed mii suñu borom kàttanal ko te xéewalal ko te li mu bëgg rek lépp yàlla defal ko ndax bu ñu ko bëggee lépp lépp jag ak bëggam bu amee rek lépp jag maanaam loo loo xereñ-xereñ liñ naa boo jàngee xasaay Serigne Touba jërul nga naan amin ndax booy ñaan rek fekk na yow booy ñaan am na loo bàyyi te fekk Serigne fàgg na lépp waaye Cheikh Moustapha Mohamed mii maanaam lépp loo xaw a xalaat wala loo bëgg a def rek loola maanaam li ma bëgg a wax daal mooy li ñuy xalaat ak ak ak li ñuy jot di ko bëgg moom de aleykum salaam li li ñuy bëgg moom xelam romb na foofu te kon yàlla na ko yàlla defal ndax bu ko defalee lépp ñu am kon ah, eh, ñu ngi delluwaat di sant bu baax ci góorgóorlu gi ak daje gi donte ñu ngi jógati wax yu feccanti ko ndax wax dëgg yàlla neexut ba neexut waaye ni ñu koy waxee rek ndax eh, dëkk bi daa daa daa sore waaye nag lépp nag diggale da ko ëpp doole kon fu waay mën a nekk nañ gën a góor góorgóorlu def nag noonu ko sëriñ bi waxee ndax moom da ko bañ ba dee nga ba muy ba mu ñuy teg daat ci yoon aleykum salaam kurus la yëkkati <coughs> dégg nga kurus nag nii rek la baaxoo kon nag nañ fexe ba ñun xaw ma fu ñu bokk ci kurus gi boo boo boo xam ci seere lañ bokk wala 33 yi wala fu ñu mën a bokk waaye ñun nañ fexe ba kurus gi bu ko ñëpp defee dégg nga incha allahu rabbi li sëriñ dégg dana bëgg ah ginnaaw nag dégg nee nañ maanaam moom dañuy soppi kii mooy kii kee mooy kee kooka mooy kii rek te it maanaam la la na ko Cheikh Mourou Moussa waxee maanaam dégg la muy xamee ne bu la digalee dégg dégg ndigal def nañ ko fa mooy ndigal day toog ne mu di ko xool saa yi dee ba gis ko mu xay ki ko doon liggéey def na ko kon yal na yàlla defal ba dégg nga lam ñu sant moom moom yàlla moom ko gisati ndax mooy maanaam lam ñu sant mooy def nañ kon yal na nu yàlla xirtal ci maanaam dégg lépp loo xam te mu di ñu digal ñu di ko def ñu gën a góorgóorlu dégg nga te boole xool te xam neen nag maanaam bu fekkonte ne wàllu kàttan bu doon te mbëre la maanaam maanaam maanaam ñun ñoo organiser làmb ki ki organiser nag a ah, wax dëgg yàlla kooku maanaam lenn loo xam ne day tax dégg nga danga lu làmb tas wuru koo mooy exemple yi nga xamante ne bi fépp foo xamante ne bi yabal na fa nit dégg nga Touba Touba yi ngay dégg lu ko waral mooy Touba mat na mat goo xam ne képp ku jóge Touba fenn foo dem dégg rek faa war a yor Touba loolu nag comportement la rawatina nag maanaam sëriñ bi kon man sama kalaas gi war nañoo léeg-léeg lépp loo xam ne war nga koo def boo ko bëggee def na nga ci xalaat ba xam boo ko defee maanaam nan la ñuy réactionné ci ci ci kër sëriñ boo la ana fan la dëkk kan moo ko yar loolu na baat baat bu mat a bàyyi xel la kon wax dëgg yàlla sëriñ bi formation bi formé nañu ci lépp kon yal nañu yàlla xiir ci ak jaamu yàlla ci nii mu ñu ko sante ndax wax dëgg yàlla jaamu yàlla goo xamante ne bi moom daa daa daa maam li fi nekkoon rek la fedd ndax gaa yi nee nañ sof rek fi nekk waaye sos moom def nañ ko bu yàgg ah léegi nag comme dégg nga dégg nga demee na noonu lii lun ñu digal la nan ci na na na nan ci na nan ci man maanaam maanaam nan ci euh, maanaam wekk suñu ñaq wet gaw ñax nag maanaam dégg nga mooy nii rek ah yàlla dogal na ah dem ngeen ba ñëw lii am na fi kon lii nga xamee mooy liggéey bi lii nga xamante ne mooy liggéey beet nii nga xamee dañ koy daje sëriñ bi lii mënu mënta mën mën a ñàkk ndax maam daa doon kilifa gu yaakaaru kon fokk am mbooloom di yaakaar fokk am mbooloom di yaakaar kon am na lu ma moustali général ma sa wax mooy xam naa ne booba sax lii barab la boo xam ñëpp ci bokk waaye benn benn yi nga xamante ne dañoo nekkoon ca daara ji dégg doon léggéey maa nee naa nee na bu ngeen bu ngeen gisee bu ngeen ñëwee war a gën a góor nekk ay exemplaire parce que bi ngeen fii nekk seen wax mooy lan yàlla na ma yàlla di ba ma fi jóge fekk jàmm ba dimbali njaboot ñun ñi ñëpp loolu lañu daan ñaan kon boo ñëwee dañu xam ne fas woo wàccu ci ñun kon li ma bëgg a wax rek mooy ñun daal noo violence waaw fu ñu mën a nekk nañ doon ay exemplaire dégg nga nag moom ca sëriñ ba ngay xool gis nga sëñ Mohamed palmarès macha allah bu rafet dégg nga ñu ngi koy waxtaan nii ñu ne biig ñu ngi koy wax li ci gars yi wax jàmbaar lañ waaye gis nañ ne deew deewee sax tudd ñu ko ci ay mbir deew deewee tudd ñu ko sax ci ci dimension suñu mbokk Mouhamed dégg nga te daf lay wóor ne ñii di ci wax nii ñii ndax bu fekkee mbàkk gi ñoo ko bokk ñoo bokk lépp nga di ci wax ñoo xam dañ ci wax mu wóor a kii ma ngi aalu ci li muy wax waaw loolee nag ña nga xamante ne dina formé nag kon looleen ñoom it war nañ ciy góorgóorlu loolu nag nañ koy bàyyi suñu xel bu baax a baax a baax kon daal ah liggéey baa ngi noonu ñuy fexe toujours nañu ko daan defee noonu rek la trois mois yi nga xamante ne bii xëy na ah, ah, maanaam amoon na ay jafe-jafe wàññiwul dara ci ci ci ci suñu liggéey kon xanaa li ñu metti woon ak sant yàlla la mooy ñàkk ñàkk woon daje waaye li sëriñ bi def mooy boole xol yi. fii na li ñu gëj a gisee bis bu nu gisee rek day mel ne maanaam dégg nga dégg nga tey ñun ñëpp a nekkoon dégg nga kon nag sëriñ bi yaram boobu maanaam noonu ko Cheikh Moustapha dégg nga di ko defee. yal na ko yàlla continuer ci daraje Cheikh Mourou Sa ñu it yal na nu yàlla gën a jubal teg ñu siraatam sax ndax nag loolu la ñuy dimbalee sëriñ bi nag maanaam mu toog di dégg fépp fu man a dégg rek maanaam mu xam ne dégg maanaam taalibeem yi maanaam ñu ngi ci maanaam ak njub ndax kilifa la te kilifa nañ ko xalaat suñu njaboot yi bay bàyyi ga rek kenn ku ne fi nga toog ni tey boo sañoon sa sa kër wala yaasi même bu ñu ne coow am na fa boo ko lijjante ñësa yow na nga na nga fexe ñu tooñ leen waaye ñoom bul tooñ bu la buñ leen tooñee da nga xam yow na nga koy lijjatee ndax yow yar nañ la yar boo xam ne da nga koy lijjat waaye bu fekkee yaa tooñ rek metti na kon nag loolu mooy mooy mooy mooy njabootu sëriñ bi sëriñ bi nga xam ne ñoo topp ci ah, kon nag fukki fan ak juróom nañ daan def kon yëf yi dañ ciy jaaraat rek ñu ñëpp ko am fukki fan ak juróom ñu ne ñu daje macha allah sëñ bi mu ne arrêté leen arrêté nañ ba mu ne commencé nañ commencé nañ dimanche ji nga xamante ne bii bi ñu ko waxee dimanche ji ci sës booba booba bu ubbeegul dimanche ji ci sësaat muy jë tey jii commencé waat nañ liggéey bi kon fu waaye mën a nekk muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ku mën a doon rek nañ continuewaat ci liggéey bi di ci góorgóorlu ah euh, bu ko defee niñ ko daan defee mooy ñi nga xamante ne bii euh, fu waaye nekk na ko jot li sa morom fukki fan ak juróom ñu ne ñu dajale luñ naan 1000 francs muy social social bet comme nañ ko defe woon rek diggante bi nag ah am na fi ñoo xamante ne bii nañ ndax nag bii barabu la barabu dimbilante la muy war nañ fee sàkk ay ñaan bu baax a baax sëñ Moustapha mii ah ab xali ab euh, maga ma ngi fi bu bu a soxna su su kon nan ko ñaanal suñu borom gën koo yëkkati mooy lu mu fi indi sëñ Cheikh ngay male ab jarbaatam daa réer xale bu toll ci perantal ajjuma ji jàll ne daa gën doon toppi gone sa réer kon nan ci def ay ñaan bu baax a baax a baax ma euh, ah, ci Moustapha moom it wax dëgg yàlla soxnaam ci biir yoo xam ne yuñ mën a wax yu a wax yëpp rek suñu borom maanaam ah, yankawal ñu bu ko muñ saa doonte na la sax muñ muñ lu sab bon day wàññi sas ndoole koo xam ne am na la am say nawle boo ko muñee mu nangu sa jox say nawle ngay xoole